jëf les gars béggee ñi nga xamante ñu ngi bàyyi xel seen seen blog hip hop TV notre miroir maa leen di bu baax a baax ah, gars yi donc wu leen fàttee abonné su ngeen abonné ba pare ngeen bës seen cloche notification pour vidéo bu ñu mën dugal ngeen mën ko am bégg naa leen bu baax a baax a baax a baax les gars donc gars yi dañuy ñëw directement ah, ci Gaston Gaston nag nekk benn old school ah old school new school parce que garçon moom xam fa ko mun a comparer parce que ba léegi moo ngi ci biir di ko ñàkkante ak booy grand yi garçon nag dañuy dem ci page muy garçon l'officiel garçon nag mu ñëw ci marche bi nga xamante ni artistes yi defoon nañ ko muy wax fii ni ñun ñu ay enveloppe pour yoo xam ne da ngeen ñu koy calmer pour ñu nopp bëgguñu tamit ay doliprane wala douleur calmant li ñu bëgg juste lenn la muy dund bi nga xamante ni actuellement ci Covid 19 yi. muy situation yi nga xam ne artistes yi ñu ngi koy dund jamono jii muy tëggatuñu concert jël nañ seen xaalis def ko ci événement yi nga xam ne waroon nañ koo tëgg ñu arrêté ko pour ñu dundaat vie réel boobu ñu doon dund wala. ñu def ko noo xamante ne tey jii nii ñoom dinañ ci mën di gis seen bopp. valeur culture bi ëpp na valeur deux milliards cinq cent. mu ni delloowaat leen deux milliards cinq cent yi monsieur le président. muy maanaam nañ jëlaat xaalis bi nga xamante ni tey gars yi wax nañ ni deux milliards cinq cent la pour jox ko ñu delloo laa leen ko ndax culture bi moo gën a ëpp valeur fuuf ay deux milliards cinq cent. phrase bu mujj nag mu ni xeetu njuuj njaaj yi kañ la fi jógee ndax ba tey loolu lañ fiy gis. Euh, première commentaire bi dama ko jëlaale mu ngi ne ci suuf parce que kooku jour bi affaire amee mu ngi expliqué Awadi te Awadi kenn detu ko présenté ci game bi moom moo taxaw carrément ni buñ ko joxee xaalis bi da koy jël donc mën nañ wax ni moom bu ko jëlee moom Awadi tey xaalis boobu noonu naka la ko mën a séddalee wala soit kon moom da ciy gérer boppam ak ñim for après ñi si des duñ laal buñ fàttali ni Dakar rek du Sénégal événement yi ñu fi arrêté yëpp yëpp yëpp yëpp ba ci dëkk àll yi sax jël nañ seen alal def si ne dañuy tëgg ay concert waxantuma laa yeneen raisons yi di doog di ñëw kon Gaston li mu wax nii dama ci ànd ak moom deux milliards cinq cent du dara culture bi moo ko ëpp valeur foofu kon gars yi ñu jéem a xeex ñun naka la ñu mën a doxalee suñu ay événement wala naka lañ ko mën a organiser si mieux que état di ñu diaboliser di ñu jaxa ci ay xaalis yoo xamante ne tey jii nii bu génnee même tey di ngay gis ña ko fi daan lekk rek ñoo ko fiy lekk ñooy créer seen i këyit ñooy créer seen i affaire après ñoom ñu ñoo valable léegi ñu si des amuñu Eh, billahi ñi ci suuf ñi nekk ci sous région yi ndax bu concert dañuy jël seen def te gis nga année bi def nañ seen te dara bi ko ñen ñen les mêmes têtes allez les gars les commentaires ci souf nu ngeen gissé les garçons wax li nga xamné publié jeudi passé ci page am Gaston ngir wax xalaatam ci xaaliss bi nga état da ko pour bu de